dëkk bi ay ay ay ay ay fiscal. Vision. gouvernement bi ah ay fiscal lañ jël fan leen ay fiscal. kay ngeen dee de man de musuma xam ne ay gars yëpp daaw daaw yi fay impôt journal yi ay sunu làmb ay ñooñu kon ñooñu daaw yi fay impôt boo tax ngeen gisul leen ñu ñu apparaître si kees bi. ilaha illallah ci réew bi pendant 12 ans. ay waay jëlee ñii ñii yéex nañ ñëw jot si nguur gi ñun may may ba jërëjëf waay ay waay merci beaucoup son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar fay ak son premier ministre Ousmane Sonko mu sell mi ñun ñii ñun baadoole yi ñun ñun ñun ñun dañuy fay impôt man damay fay impôt man man damay fay impôt man dañ may dagg impo dama koy fay waa léegi ñiy gagné ay milliards ñoom nanguwuñoo fay impôt mais mais loolu mooy ban dëkk fay leen far force waay am dans le secteur de la presse nag bu ñu ci eh, jàppul on va encore créer d'autres choses. presse Sénégal man dama yaakaaroon ne yéen amuloo leen état bi dara ba ngeen fan yére passé rek fi yàggul nii da ngeen génn di bandi bandi kenn ku si nekk naan non état bi lii ak laa dama yaakaaroon ne yéen amuloo leen état bi dara seen wax rëy ji yëpp. c'est que ñun jeunesse xam nga ñu tax ñu bëgg yéen ñenn ci presse bi dem dem au chômage xam ñu bëgg. Naby Vi parce que yéen doon ay journaliste vraiment yéen niveau bi ngeen tolloon ci affaire journaliste da ngeen wàcc da ngeen wàcc ba niveau niveau petit baan yi yéen ñun ñi ñëw bëgg ngeen dem au chômage parce que xam nga lu tax doo leen ay journaliste yu crédible yéen dëkk bi. li fi musa am lép lépp lépp lépp lépp lépp ñenn ñi si journaliste yi duñ ko génnee duñ wax la xew état bi soog a ñëw ni ñenn si journaliste yi dañ fi toog di leen critiquer di def ay affaire ak ñuy wax ni ngay nekk si débat au lieu ngeen wax lu am fulla mais lu ñàkk a fayda nga ñuy di ko kii saabu premier dame bi ah président bi ni mu soloo tubéy bi mu sol dafa ëpp hmm? ay affaire yu ñàkk fayda yéen ku leen déglu day day xeeb day xeeb ni journaliste sénégalais dañ leen xeeb xoolal fan ngeen nekkoon vingt quatrième wàcc ba soixante quatorzième ah wàcc ngeen ba soixante quatorzième yéen yéen moom ngeen jël léegi ni niveau presse Sénégal ba pare ngeen bëgg nekk fii nii rëy naan non ñu ngi jéem a xool ak kii ak yaa la da ngeen ñu fay impôt de doon 2S amul problème

li ab abbé André Latyr dem ba tudd géñogu waa ji ba ci wax waxi géñogu takk sobeeg yooyu xam naa loolu moo euh, jógloo xol yi xëy na. waaye ni ko Georges waxee léegi l'abbé André Latyr ba fi ñu toll nii waxul waxul la diw wala diw la de boo jàngee bataaxal ga mu bind la mu xaatim dafa ne ay loxo yoo xamante ni wala ay géeño yoo xamante ni. Euh, melul ni mu war mel warul saytu réew waye ba léegi tudul ni ba léegi tudul ne diw lañuy wax wala diw lañuy wax. Hmm. waye est ce que junj doyul xel ya ni won sank junj doyna borom. Sénégal Babacar Fall dafa invité won abbé Alphonse biram Alphonse Biram nak ñukoy sante diko di ci waxam ji même bu fekkee dem na ba mu jeex mënul won def leneen lu dal di faral ki nga xamanteni mom moy Abdallah Abbé Latyr Ndiaye wax deug yalla légui nak Babacar Fall mi ko doy war la li tax ma koy wax moy Babacar Fall dafa ni est-ce que dou ñi nga xamanteni ño nek ci toile bi di wax ñi nga xamanteni ñom ñoy xalab abbe bi ñoy ñi nga xamanteni dañoo nek dañoo bok appartenance ak Ousmane Sonko ci walum parti politique et cetera et cetera man duma militant Ousmane Sonko. amna tamit ñeneen ño xamanteni ñi ngi naan gaay ndeysaan dégguñu français mané leen seen jangi jotna <laughs> li gaay di wax naan seen jangi jotna mooy bu fekkee ni jàpp ngeen ni dégg ngeen français ba comprendre lu dix mille personne comprendrewul ça veut dire que ni nag li waa ji waxoon ñëw na. Naby Vision. Euh, mooy ki nga xamante ni moo jàpp ni moo gën a muus ñëpp na jàpp ni mooy dof bi gën a rëy ci dof yi parce que buñ toogee Sénégal ñu dégg. gars ni way abbé bi dafa lak ay français yo xamanteni ni bi lu lak français yu terre à terre la c'est pas extraordinaire du tout il suffit de lire et de lire entre les lignes ta abbé bi sa wax nako néna xeyna bu fekkone ne dañoo yam ci li premier ministre wax ciow bi du continuer ciow bi du continuer dañuy jall ci leneen waye bo nekkee kilifa nga nekk ci walu wi wala nga nekk ci walu wële dafa am no wara waxé man ci berne whatsapp ci ben groupe bu ma bokk waxtaan doon na am ma Ousmane Sonko franchement li nga xamanteni mom la def comme discours on a l'impression dafa improviser improviser wax lo xamanteni peut-être nek na lo xamanteni du luñu wara wax ci pench parce que bu waree xew premier ministre mën na jox injonction ki nga xamanteni mom moy Mamba di Moustapha Girassi, di président euh, non di ministre euh, éducation nationale mu ji mu dox ci tank yoyu wax len ni len carrément fi Sénégal suñu laïcité nanguwul yeen ngeen am agrément wu enseignement éducation nationale nek seen kilifa ngeen ne da ngeen fiy tere li wala da ngeen fiy tere la nabi Vision. affaire bi fofu la waroon nek waxtan am au préalable. gaay ñew surtout buñ xamé ni en 2019 mille dix lu mel noonu amoon na fi. Li wax naa ko ni Ousmane Sonko ni mu def comme discours wax ci voile be et amul dara lu extraordinaire qu'on se dise la vérité amul dara lu extraordinaire mais c'était pas le moment ni le lieu wax dafa am fuñ ko wara waxe ak heure buñ ko wara wax li moy deug légui nak est ce que dafa attaquer église bi pour autant abbe bi nee na doyna hell. borom xel lolou la wax junj doyna na borom xel ñu dem ba ci biir. ñu laajaat ko fi ma gisee contradiction mooy Babacar Fall da ko laajaat ni ko est-ce que du abbé bi bu mu tuddee tubéy ak géñ ak ji moo tax gars yi di kaas moom mu ni non dafa bind mais waxul kenn <laughs> heureusement ba Babacar Fall relancé ko ni ko ah yaa fi waxoon sànq ni junj doy na boroom xel abbé bi daal di ne waaw junj doy na boroom xel waaye bëgg a expliquer pourtant li mu nangu fee moom la bañ fii ñuy wax ni rek Sénégal dafa am dafa am benn benn spécialité wala benn spécificité boo xamante ne am na fi mooy ñun ak chrétiens yi ñoo dëkk te wax dëgg yàlla ku ne nangul nga sa moroom mbir man j'ai vécu avec quelqu'un boo xamante ni ñu ngi koy wax Joseph Doc man moom dañoo dëkk ci benn kër nekk France amul papa amul yaay amul doom amul xarit amul dara ñun ñoo dëkk. Naby Vision. bu dimanche mu ni ma maa ngi dem église. man buma waré julli même 6h du matin buma waré waree sama alarme dina sonné té musuma dégg mu ma sawaay da nga may déranger té man buy wax ay waxu affaireu catholique wala affaireu nangam wala té dañuy discuter ci sujet yépp nak mais musuma am discussion bo xamanténi ci religion la joggé man ak mom xol jog té musna féké fo xamanténi xamante taxaw naa fa di def vidéo di dal ci kaw cheikh yi parce que cheikh yi dafa mooy sama kilifa ci diine gi ba bu ma nee ci diine gi mooy fi ma bokk man di nekk di taalibe Baay Cheikh Mahi dafa mës génn def benn discours discours bi nanguwuma ko parce que te politique ma génn def vidéo vidéo baa ngi si compte bi ni Cheikh Mahi je suis pas d'accord ak li mu wax daal di di ay taalibe Baay dal sama kaw doo taalibe bàyyi doo nangam doo nangam mais dara mënuma tere ma nekk taalibe Baay parce que Baay Ñas moo ñu yeewi ci loolu Baay Ñas moo ñu ci loolu Baye Niass moo ñu seen xel yi tëjuma ko képp koo xamante ni wax na ci àdduna li mu war a wax am ngeen ci xalaat ma amoon ci xalaat ci li Cheikh Mahi wax dal di tontu léegi nag abba bi nga xam ne mag moom bokkuñu diine mu wax loo xamante ne jàpp naa ne dafa laal sama diine muy sama interprétation personnel keneen mun a am bosam ma ni leen je suis pas d' accord ak lii gars yi ne non dafa déggul tubaab moo tax. Naby Vision. <laughs> <laughs> ak sénégalais bu faire passer benn message da lay traiter de tous les noms pour ridiculiser le, pour moi mën faire passer affaire mais bi te mbiri warul demee noonu convaincre moo gën vaincre léegi nag problème bi nga xamante ne am na Abbé Alphonse leeral na ko mooy ñoom nous saisir l'occasion nous saisir l'occasion pour faire passer un message message bien vous faire passer moi le comportement de gars yi nga xamante ne ñooy jullit yi ñëw porter ay voile nekk ci biir enceinte bi di jangal mais loolu mënon nañ ko régler ci benen anam ban anam lañ ko mënon régler wo parents ni len fii dafa am ay activités yo xamni dañ ko fi def fii dafa am ben cohésion bo xamni dañ ko fi bëgg képp ku fi ñew comportement bi nga wara amé parents bu ko nangul nangu ko ku ko nangul nak ya ko nangul au moins waxtaan nañ ko mais jek jek xaatim sa communiquer wala sa ben affaire ni non ñi dañ leen di interdire et cetera ça ne se fait pas ni premier ministre jek jek door affaire bi sur la toile ciow li ma ne ko yéen en 2019 noonu ngeen jëlee seen décision daal di ko ni wékkit ci affaire bi coow lu bëri. Naby Vision. voilà bu loolu weesoo nag éducation gars yi wax naan carrément waaw nangam nangam nangam gis nga ñi nekk ci euh, diine chrétien ñooñu gën a jege culture bi nga xamante ni moom la ñuy jàngalee ñun presque seen seen seen appanage la seen seen seen si seen voilà buñ buñ leen dugalee ci éducation nationale et cetera. ñom duñ dépi dépaysé wu parce que sen sen dafa jege sen affaire sa dafa mengo dafa mengo parce que culture occidentale ñun mom la ñuy jàngal ci école yi buñu ñu les résistants les les résistants yi buñu ñuy jàngal ay Cheikh Amadou Bamba El Hadj Malick après dañu jàngal mais les résistants pacifiques vite fait lañu ci tuddal ay ñom la jor bataille yi ñuy jàngal yépp moy fiñu ñu leen duma duñ jàngale par yenn saa yi rarement ngay gis ñu gis fuñ la jàngalee victoire et cetera Sénégal liñ la si jàngal mini Afrique et cetera du bari lépp liñ lay wax deuxième guerre mondiale première guerre mondiale la France wala les États-Unis la démocratie la démocratie est née en Occident et cetera yooyu lañ lay jàngal. Naby Vision. ñu mu war ñoo yóbbu foo xamante ne war nañu repenser ñun suñu éducation suñu système éducatif dañ ko wara repenser xoolaat ko xool ba xam mengo na deug deug ak Sénégal lañ fi wara a ñu jàngale ko voilà légui nak le comportement des jeunes qui vont à l'école et qui se disent ouais ñun on va pas se mélanger avec ces gens-là etc. etc. » c'est un problème de voilà bo xamanteni carrément école bi dafa war a toog ci ak ñi nga xamanteni ñom ñoy les concernés les élèves les parents d'élèves l'éducation nationale l'IA ak ñooñ ñëpp ñëw toog waxtaan ni décision yi lañ ci jël buñ ci jëlé décision yooyu appliquer ben règlement intérieur bo xamanteni ni c'est strictement la vérité ak li nga xamanteni mom la école bi bëgg ciolu li dootul bari mais bo bëggé xëy rek dal di dóor say affaire mom say ciolu li lay continuer Ta Abbé Alphonse nag réglé na problème bi malgré quelques affaires yo xamanteni ni duñ ci ñëwaat mais di wax ni moy dëgg boo nekkee kilifa nga nekk ci wàllu wee wala nga nekk ci wàllu wële da ngaa war a am noo xamante ni moom ngay waxee te wax ci warul ñagas. Naby Vision lii mooy lu ma jàpp ci waxam ji di sant di gërëm di ci kontaan sama gars yi di leen wax ci la ngeen def